Canal Plus nag lépp lu jëm ci tàggat yaram rawatina football bokk nañu ci ñi fi mën wala ñu ne ñoo fi mën rawatina Coupe d'Afrique bii ñu nekk bañ nañu ko ba chaîne spéciale la ñu ko wutal muy Canal Plus CAN kon gaañi daw leen ngeen wuti décodeur bi. Bonjour, c'est Lilian Gatoun en direct du plus grand rendez-vous du football africain. Chez Canal+, on est tous prêts avec la nouvelle chaîne Canal+ CAN, un dispositif exceptionnel, tous les matchs tous les experts Canal Plus et des émissions spéciales je vous promets on va tout donner. ak Canal Plus dinañ joxe lépp ci kan bi match yëpp ak experts yi 24 heures sur 24 loolu yëpp ci chaîne bi di Canal Plus kan ba sa lëf ci sa décodeur am bépp xibaar ci kan bi kon réabonné wu leen gaaw ngir dund kan bi yëpp profito ci tout Canal Plus nga xam ne dañu la koy may ci diiru fukki fan ak juróom. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Gàmbi bi tudd du Fall ñu gën koo xam ci mu Fall moom nag club bu ñu naan West Brom ñoo ko moom dañ koo able woon nag ci club bu ñu naan Doncaster waaye doomu Gàmbi bi waa West Brom jëlaat nañu ko li ko waral nag bokk na ci ñàkk juboo ci diggante ñaari club yi kon jugee na ca Doncaster delluwaat ca West Brom waaye nag jamono ji moom kii tàggat club boobee di Doncaster dafa mer ba futu nee na waa Doncaster waroon nañoo téye doomu Gàmbi bi muy def mën na ko saison bi ñu nekk li mu jongante ci ay match ca club boobee mi ngi toll ci 33 maanaam fanweeri match ak ñett jongante na ko ak waa Doncaster dugal na ca neuf bit juróom-ñeenti bit li tax nag coach ba mer moo di taxawaayam dafa amoon solo lool jugee na foofee nag delluwaat ca West Brom ñu jógee ci Modou Fall ñu gën koo xam ci Mo Fall waaye doomu Gàmbi yi duñ leen bàyyeegum kii mi ngi tudd Bakary Diatta moom nag ma nga ca réewu Allemagne club bu ñu naan Hambourg club boobee nag ma nga ca deuxième division bu Allemagne moom jógeewul foofe waaye yokku na contraam ba atum deux mille vingt neuf ca club boobee moom Bakary jaata nag yàgg na lool ca Hambourg ndax ci atum deux mille seize la demoon ca club boobee waaye kóolute gi ñu amoon ci moom tey la ñu ko gën a am yokku nañu contraam ba atum deux mille vingt neuf li mu fa football ci ay match nag bari na lool ndax football na fa lu ëpp deux cent match moom Bakary Diatta yokk na contrat foofee nag ñu jugee ci Bakary Diatta ak contrat bu bees dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag li ñu bëgg moo di milieu de terrain bu mën la muy def jamono ji nag quatre-vingt-dix minutes nee na doomu Espagne bi tudd Zubimendi nekk ci Real Sociedad moo gën a jekku ngir dem foofee jàppale leen te Zubimendi nag li muy def mën na ko lool te dañoo xaw a loole bokk na ci li tax ñu bëgg koo xaatimal contrat waaye kat waa Bayern de Munich yemuñu ci loole képp doomu Espagne bi tudd Grimaldo nekk latéral li ñu bëgg moo di moom it ñu xaatimal ko contrat ma nga ca Bayer Leverkusen waaye Bayer Leverkusen googee kat li waa Bayern de Munich bëgg moo di seen attaquant bii di Florian Wirtz moom it ñu xaatimal ko contrat quatre-vingt-dix minutes nee na jamono ji waa Bayern de Munich ci loolu la ñuy liggéey ngir bu saison bi jeexee balaa ñoo saison bi ñu xaatimal leen contrat ñu jugee ci subi mendi waaye club bi ko bëgg di Bayern de Munich duñu leen bàyyee gum dañuy jël doomu almaañ bi tudd Kimmich fan yii nag am na xibaar buy génn di wax ni waa Bayern de Munich dañoo bëgg a weccoo ak waa Paris Bayern de Munich jox waa pari kimis waa Paris jox gone gii di Mukiele waa Bayern de Munich loole nag Freund moo ko weddi Freund nag dafa bokk ci directeuru club boobee di Bayern de Munich nee na loolee ay caaxaan la ñu noppiwuñu ak waa Paris loolee nag Friend moo ko xamle dénk ko waa Bild ñu jugee ci Kimis ak waa Bayern de Munich dem ca waa Girone ñoom nag tey jii dañoo kale Almeria lañ doon jàkkaarlool match boobee Liga la soxaloon dañoo témboon ak 0-0 ndam demul ndam dikkul waa Girone nag yeggali wuñu match boobee à 11 à 10 la ñu ko jeexalee jamono ji nag ñoo jiitu ca Liga e-sport ba waaye benn poñ képp moo dox seen diggante ak Real de Madrid te Real de Madrid am na match retard bu mu footballagul match boobee nag kenn du ca doomu Sénégal bii di Dion Lopy doxal na ca bi match bi jeexee moom la ñu tànn mu doon gone gëcc gën a xarañ maanaam homme di match bi du kenn ku dul Dion Lopy moom ma nga ca Almeria tey jii doxal na bi këlëbam di jàkkaarloo ak Girone ñu jugee ci John Lopy ak match bu baax bi mu amal tey jii jël doomu France bii di Kylian Mbappé bu ñu sukkandikoo ci liki ba léegi waa Real de Madrid ñoo ngi koy xaar Real de Madrid dañu ko tegaloon contrat ne ko may nañ la fukki fan ak juróom file ak suba nag waa Real de Madrid ñoo ngi koy xaar ba xam Kylian Mbappé lan lay wax ci ëllëgëm jamono ji l'équipe nee na waa Real de Madrid ñoo koy xaar waaye l'équipe nee na semaine bi ñuy waaj a muy suba Cheikh maanaam balaa ñoo yegg ci dimanche su tey bii Kylian Mbappé dina wax ci ëllëgëm day toog ca Paris jàppale leen wala day dem ci beneen club loole liki ba ko xamle waaye mbiru Kylian Mbappé moom incha allah dara du leen ci ump dinañ leen ko toppal. ñu jugee ci Kylian Mbappé dem ci final super coupe d'Espagne bi àdduna gépp doon xaar tey jii Real de Madrid moo doon jàkkaarloo ak Barcelone Real de Madrid nag moo am ndam lu yaatu ñeenti bal ci benn bitu Real de Madrid yi Vinicius moo dugal ñett ña benn ba Rodrigo Rodrigo moo ko dugal bu dee bitu Barcelone bi Robert Lewandowski moo ko dugal Vinicius mii sax mat boobee bi mu jeexee moom la ñu tànn mu doon gone gëcc gën a xarañ Real de Madrid nag coupe boobee mu jël mooy doon seen treizième fois maanaam fukk ak ñetteelu yoon ñuy jël super coupe d'Espagne bu dee Xavi moom def na lu gëj am ci diggante Real de Madrid ak Barcelone benn at maanaam ci lu matul at Barcelone di jàkkaarloo ak Real de Madrid Real de Madrid duur ko ci ñaari yoon yoo xam ne lu mu gàtt-gàtt waa Real de Madrid dinañu dugal ñeenti bit ndax ci weeru avril 2023 waa Real de Madrid doon nañ jàkkaarloo ak Barcelone gañe ko ñeenti bal ci dara tey jii ñu doon jàkkaarloo riyal de Madrid gagné ko ñeenti bal ci benn loolee nag matul at gëj naa am nag ci atum 1951 Barcelone ak Real de Madrid di jàkkaarloo ci diir bu toll noonu Real de Madrid dugal Barcelone ñeenti bit ci ñaari yoon yu bokkul. am na ñu naan nag loole ci atum 2023 la woon bii nekk ci atum 2024 li ma wax xam naa war ngeen ko dégg maanaam ci diir bu matul at ndax kat weeru avril ak weeru janvier matul at ci diggante boobu laa wax Barcelone. encaissé ñeenti bit ci ay kangam Real de Madrid dugal ko ci ñaari match yu bokkul. ñu jugee ci super coupe d'Espagne bi ñëw ak yéen ci match bi mujj ñu ko doon amal tey ji mu soxal coupe d'Afrique bi ñëwoon nañu ci yéen ci journal de la CAN bi ci ñaari match yi jeexoon mu desoon match bi Ghana moo doon jàkkaarloo ak Cap-Vert waaye Cap-Vert dafa bett gana gagné ko ñaari bal ci benn coupe d'Afrique boobee dañu koy wéyal suba équipe nationale bu Sénégal bu 14h jotee dina jàkkaarloo ak Gambie ñëw